asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ak ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñuy suivre ci la TFM ah. nag mooy presse café presse café nag nekk ay nit yi nga xam ne nii. Assane Ndiaye assan Ndiaye borom bool production bu ñu nee bool production nag xam nga assan da nga ci biir daaw daa ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir tey nag li ñu fi mooy remise de drapeau la ñuy def drapeau kan. Ali Samb wala boog Aliou Samb ñu gën koo xam ci turu Ali Samb moom la ñuy defal tey remise de drapeau fii combat bi dox ci diggante kan ak kan grand combat bi tonnerre numéro 2 nekk écrit Ndakaaru ngeen xam ko bu baax a baax doomu lébu la di doomu yoof ñu gën ñu ko naan gin bu yoof boo xoolee ñoom ñu ngi toog am na combat spécial bu nekk ci biir diggante garga bébé garga bu yëmbal ak zal bambey bu bool mboolo ak yeneen combat maam góor si ñor maanaam 10 combat daal si ñor maam góor ok kon Occidental kaay Occidental ku muy bëreel sax Cheikh Diaw oxy Occidental man de am xamoon naa machine Occidental bi ñuy bayee bu ndaw bi bay ca dëkk ba laay wax de maa ngi lay nuyu Occidental xaw ma bu mu nga tudd sa bopp xaw ma. maa ngi lay fay nga dëkk. man maa ngi dëkk tudd sa bopp. bu ma tudd sama bopp mooy pays yi a jege Europe. Euh, ngay bëree ak kan kan mooy sa adversaire pour le sursis. pour Sine 2. waaw tey gisuñu ko fii la moo tax ñëwul. ah xaw lu tax ñëwul moom xam naa bu suur ba incha bu neexee yàlla dina ñëw. waaw ñaata combat nga defagu ci arène. man bii mooy sama premier combat arène nag. premier combat. waaw. premier combat ah ak Bour Sine bi nga ko seqal. non non du bu naree yomb ñu ko. Uh-huh. incha allah bu neexee yàlla bu suur ba rek dina xam lépp dëgg la. Uh-huh. bu neexee moom loo koy wax. koy denk tuuti rek ba jour ba rek dañu yàlla may tal bu ñu man ko ba jour ba incha allah yàlla may ma ci kawam. bu ba dinañ bëre dinañ fogole séeréer xanaa di nga woo kon gis ko adversaire am ñëwul muy Bour Sine moom ñëw na wax na galgal nag Talla Ndiaye ubbul làmb. Góor Siñoor defe moom mu ngi fi moog adversaire am moog raskas mais bàyyil ma jëkk woo maam Góor Siñoor rek ana maam Góor maam ñaaw la borom tëngeej waaw doo leen def nii a salaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ku si nekk di la nuyu sa tur ak sant di jaajëfal ki nga xamante ne nii moom moo tëgg combat bi muy Assane Ndiaye li ma koy wax moom bëriwul dama koy ñaanal jàmm di ñaan ñëpp ñu si war a bëri am jàmm ba jour yi que le meilleur gagne. que le mhm. maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp assistance bi di nuyu waa hôtel bi ah di nuyu Baol production bi yëpp di nuyu suñu mbokki mbër yi fi nekk ñëpp. waa di ñaanal Assane Ndiaye yi mu am mu am yokkute bu baax a baax waaw loolu daal la ñuy wax di suñu mbokki bawol bawol yëpp di leen nuyu waa di leen wax ne maam góor siñoor may si combat di leen wax ñoom ñëpp ñu préparé waa xam naa ko nii waa loo ma mën wax ci raskas waaw raskas li xam si moom mberu mu qualité la waaw mberu mu ñëpp bayee la waaw mberu qualité la daal mberu mu ñëpp bayee la waaw te mbir moom buy def ay preuve nit ñi di bàyyi ci moom xel moom waaw boo ko jëlee moom yaakaar naa il faut nga jël say matuwaay yëpp. kon yow jël yan matukaay nga war a mën a jël yuy daan raas yow nga xool caméra bee maam góor. waaw raas kaas waaw mbir ay kii yu koy daan moom ay kale yu koy daan moom loolu am problème moom. am nga lu koy daan am na problème ndax est am nga lu koy daan. waaw xanaa déggoo li ma la wax ci biir dama ne la. mbiru qualité la. waaw mbiru qualité moo tax nga lekk amaana mais lu koy daan ndax yor nga ko yow ma. waaw olof ne nan du ngi du teew ñuy natt si ak dégg nga lim wax na ne moo la dàq bëree mais ngeen xool caméraman caméraman yi nag moom ñu ngi ci match ba ñoom dëgg la lu mu wax noonu si man yëpp si moom la nekk moom mooy mbëru qualité bi mais en tout cas man lenn laa xam mooy que tëngéej dañ maa yónni yaakamti ma te dama jàpp ne ñuy yóbbu laamu tëngéej si kanam man si laa bokk di wax nag xam nga képp koo xamante ne nii daan nga ma jàppale sama combat rek combat bii nii laa gën a respecté si sama combat yëpp ndax dafa am si loo xamante ne nii fa laa teg sama bët te bëgg naa fa àgg incha allah waaw mais li mu wax dafa am lu mu wax léegi ci ay biir waxam nee na moo la dàq bëre. waaw na jël bu jour yi su ma ko daanee maa ko dàq bëre. mais bu mais nga bàyyi ko bëre bëre bi bu loolu wóor na est lu ma la bu ko neexee muy wax te demaguñu ci làmba ja mais suñu jógee ci combat bi dina tal leneen lu dul wax ne moom moo ma dàq bëri. lu muy tal bu ngeen ci jógee. non après lay comprendre. non ñun ñoo bëgg a comprendre balaa ngeen cay dem. Ah, dama koy daan incha allahu. diit waaye yaa wax lii. billaahi wallaahi taalaahi kii lu ma entraîné xajul ci kawam. raas li nga ñoo koy ñu ci mel ni ay gàmmu ñu ci mel ni ay doomu daangoog yooyu ah la man moom ay xale ñoo may contacter quoi ay xale rek lañ suñu egri moom parce ay xale ñoo fay ñuy mel ni ñoom kewel ci ñoom buur waaw xale yu pànk yooyu waaw ñoo nekk egri ba daal kewel mu mut ja ñoom wuli de ñoom ñoo egri ba ay tey rek ñi ñuy suivre moo xam TFM la wala Leewtoo TV rek du mën a ñàkk ah. nag bés bu ne am na lu koy loo ciy def mu am xorom mën a neex Talla Ndiaye ki xam ne nag moom mooy bébé garga dëkk yëmbal moo war a bëre ak Saal Bambey muy combat spécial ba ana bébé garga ak Saal Bambey bëri turandoo ci làmb ji moo guy gi xam naa ñooy mbër yëpp turandoo ci làmb ji garga mboose ak guy gi bu école rit mor fadam waaw xam naa daa garaaw mbaadu ni moom nga mel yow ban garga nga ci garga deux nga wala junior nga wala bébé nga wala ban garga li ngay dégg rek ndax du ma suivre làmb a ah, am na lu ma ci suivre tuuti. garga deux ngay dégg seetaan naa daal xam naa ne Mouhamed Ali ak Zallo fii ci stade Iba Mar ci gazon bi loolu de seetaan naa ko moom keroog 2000 laa yor fay ko bi ñibbi reeru ma. instant bi waaw loolu dëgg la mais si deux bi la ñuy wax instant bi nii maa ngi sama dixième combat wax la ne maa ngi suivre làmb boobu ngay dégg <laughs> am nga jàmm sant yàlla bu wér ana waa yëmbal waa yëmbal ñëpp a yëmbal marain nga dëkk wala tournalu yëmbal wala ban yëmbal <laughs> yëmbal laa dëkk yëmbal bépp laa dëkk waaw <laughs> bé nga ne maa ngi yëmbal mbooloo. yëmbal mbooloo waaw. Ah. nga war a bëre ak Sall Bambey Sall Bambey daa mel ni ñëwul xamul lu ko tax bañ a ñëw. ah loolu lañ wax de man daal en tout cas nekkuma fi woon dama voyagé woon signature bi moo tax ma dagg paas mu ñëw. parce que parce que damaa respecté promoteur bi nga xam moom moo tëgg combat bi xam loolu moo tax ma dagg paas si ma nekkoon ñëw pour teew ci signature contrat bi quoi parce que signature contrat dafa bokk si si contrat bi ngay signé. CNG quoi xam nga waaw boo ko tardé rek ah lu la ci fekk yow yaa ko teg sa bopp waaw bii sax man bii sax du signature contrat ah, mais remise de drapeau la. ah d' accord mais. mais rek ci biir la bokk pour jàppale promoteur yi pour def promotion wu làmb ji parce que tamit kii yëkkati xaalisam di la fay comme ni nga waxee ni dafa am solo nga di ko jàppale parce que olof nee na loxoy kajoor day weesaloo. voilà noonu la demee nag man du Zal Bambay moom fi de promoteur moom fi mais bu doon Zal laa ko soxla te jour boobu si ay minutes laa ko ci soxla muy dimanche la 5 léegi su ma ñëwee yow ñaata combat nga def si làmb. dis combats. ñaata victoire. 8. sa palmarès tel na mbaax na macha allah. ah loolu la yàlla def daal waaw ah, li si kanam nag rawuli bët quoi xam naa li si kanam euh, dinañ bàyyi xel daal di ngeen bàyyi xel bu baax a baax. mais Zal loo koy wax yow Garga 2 mu ngi jàkkaarloog ñëwul mais mu ngi lay seetaan loo koy wax. instant bii nii moom wax dëgg yàlla moom ah su ma nee mën naa wax Zal Bambey dara dara damay wax lu ma neex parce que ñëwul. man maa jàpp ne làmb ji maa si dàq bëre. làmb jëpp jëpp nga wax waaw billaahi wallaahi taalaay ci kaw ba suuf pour man maa si dàq bëre. tonnerre mi sax ak gin bu yof yaa leen dàq bëre. <laughs> ñoom ay champion lañ ñii ay sampion lañ. yaa leen dàq bëre. mais daal man li ma wax moom dara duma ma si jëlee ci kaw ba suuf maa dàq bëre. kon ba tey rek xam nga làmb ngi nii da ngeen li mu wax bu yëmbal war a bëre ak Zal nag ñëwul. mais tam dinañ yokk mbër yi rek yox leen suñu xalaat tuuti que ni gën di jàppale promoteurs yi des fois ci remise de drapeau yeeg phase à yi parce que tamit comme nit ki dala jox xaalis ngeen di liggéey moom defe naa ngeen jàppalante day am solo ah loolu am na solo Ali Samb nag ngeen xam ko ñu gën ko Aliou sax la tudd Aliou Samb mais tur bi Ali Samb moo gën a siiw moom la Assane Ndiaye jël nag pare ne ko bés bu mag bi pour le 5 mai ca stadium Iba Mar Diop Assane a ngi toog Ali mu ngi toog Ali anamu ana Ali wala Aliou Samb waa dégg naa ndeysaan kii moom moom pàkku bawol bawol yi rawatina ba nekk rëbës di fonseek rëbës ak pàkku lambaay ba ca sàllwante ak ba ca Pikine yaa beaucoup de pàkk à Dakar <laughs> eh, eh, eh, beneen bi ci des tamit li ci gën a neex ne na APR Dakar Plateau la bokk waaw kon ñu ñuy nuyu waa Dakar Plateau yëpp parce que man tamit Dakar Plateau laa dëkk waaw bawol bawol laa mais foofu mooy sama daluwaay kon Ali